nous avons am naan Conseil des collectivités territoriales pour voir rien qui fait xew-xew yi nga Sénégal Nous, li nga bi ñu Conseil des collectivités territoriales ci dafa jot ñu wax leen ñu jox leen xibaaru bànqaas jox leen comme ni nous ko gisee nous, président de la république jàppee ba nga ci a def ci la ñu au conseil des collectivités territoriales territoriales dégg ngeen wax bu nekk jib jëm ci suñu bànqaas xam ni ñu yi am na ci ay wax yoo xam ni oyof na fa mu wéeru am na ci yoo xam ni xëy na ñàkk xam moo waral kàddu yu mel noonu génn su demee noonu dafay am solo ñu wax ak yéen waaye bala maa tàmbali dafa am loo xam ne lu am solo la lu ma bëgg fàtte mooy benn bi boo conseil des collectivités territoriales digle la woon boo xam ni mu nga jóge woon ca assise nationale yooyu te nga xam ni ñoo fa nekkoon doon ci yëngatu bokkoon ci nga nga ñoo xaatim digle yi génn ci assemblée nationale ñoom bokk nañu ci ñi nga xam ni tey ñooy ŋàññi au conseil des collectivités territoriales li des mooy ni bànqaas bi tëddoo mooy fu Sénégalais nekk nga xam ni yor nga kàddu mbooloo wala jiite nga mbooloo wala yor nga ay ndomba yu la mbooloo mi jox ci gox goxaan yaa ngi kenn ku ci nekk am nga teewal ci biir Haut Conseil ba ci suñu kilifa yi diine yi nga xam ni ñuy yeesal suñu sargal

Bignona Oussouye Ziguinchor ak Bounkiling ca élection yi ba ñu jàkkaarloog Benno Bokk Yaakaar ñooñu nga xam ni ñu ngi ci biir au conseil te tey di ko ŋàññ bokk nañu ci ñi nga xam ni seede yu wér lañu ci jeexital bi nga xam ni liggéeyu au conseil am na ko jëmale ko ci suñu réew ak suñu citoyen solo au conseil nag mi ngi sukkandiku ci benn dogal boo xam ni euh, kuréel googu ñu naan Union africaine te Sénégal bokk ci bokk na ci ñi nga xam ni ñoo dëgëral solo au conseil ndax ñoom kuréel googu Dèm nan yousa, bol wè soulye ou, takawal, dò djèl ap dogal, pou takawal, bankas pou men ni o konsey, wèye djem mèl go, mou yor djem mou Afrika. Mou yon o konsey de zotorite lokal tibir, union, afrike. Beno mi? Rine bitire ou mou wakam ni, li tèm réew mi yëpp ak doxalinam mooy loolu ñu naan charte ndeyu réew mi di ko wax constitution charte ndeyu réew mi dafa am benn charte boo xam ni ñu ngi ko tuddee charte deux mille seize vingt quatre bu quatorze juillet deux mille seize deux mille seize dix du cinq avril ca référendum bi ca la sénégalais yëpp ne ay la yëwan ànd nañu ci taxawal au conseil des collectivités territoriales ginnaaw loolu mu am benn dogal boo xam ni benn charte boo xam ni moom lañ tuddee deux mille seize vingt quatre bi quatorze juillet buy dënk li nga xam ni mooy sasub au conseil doxalinam

noonu lañu ñu war a wasaaree mbooleem jumtukaay yoo xam ni dafa baax ci koom ak ci dundinu doomu aadama muy ci wàllu tali nekk ci wàllu hôpital nekk ci wàllu poste de santé ak lu mu mën a doon yoo xam ni dogal la buy jógee ci boppu nguur gi ñu fexe ba wasaare ko ci gox goxaan waaye ni au conseil ginnaaw bu xalaatee bu jëlee ab mbir càmbar ko xalaat ko ba génne ci ay xelal xelal yooyu da koy tënk ci téere boo xam ni da koy jébbal président de la république ak gouvernement loolu moo tax suñu communication au conseil amoon yenn jafe-jafe ñeel digganteem ak askan bi ndax bu ñu la nee téere bi nga xam ni moom nga tënk say xelal donc kenn dom nga ko wara a muy président de la république teggin daf ñu laaj ñu def loolee nga xam ni moom la ñu charte boobu teg waaye ma leen di fàttali rek bi solo au conseil également boo ko bëggee xam da ngay delloo sa xel ci 2013 ba président de la république taxawee ca union africaine ni leen kat Tiyot nou. Bouri nou mwana wasare. Ndo gwa ni yi djen tika ou. Mwana sep dele koum. Din a kham ni mwom le riyou yon. Nou takawal tisu yu kurel. Gin yi wakinyo Afriken. Bankas koutou dou. Ou konsey. De zotorite lokal. Om kode ve. Rafi Taiba. Ak solo. Khalat bo ou. Yobbe ay natango. Nou koum. jël dogal pour taxawal kuréel bu mel noonu moo tax sax ñun bu ñu sañoon ñu ngi ñaan président de la république mu profiter ci mandaam bi mu nekk président de l'union africaine pour ñu jëmmal au conseil boobu des autorités locales ci biir union africaine euh, ngir dëgëral dogal bi naataangoom yi jëloon pour taxawal ko te au conseil des autorités locales d'agagi mon moo de a nekk dëkk bi la siège du di nekk au conseil mën ci ay fànn yu baree bari waaye dañ ci jàpp rek ñaar benn bi mooy keroog ba candidat Macky Sall doon wut réew dafa bindoon ab programme tëgg ko ci benn téere bu ñu tudde woon yoonu yokkute ci biir téere boobu bindoon na ci ni faloo buy woon waaye bindoon na bu faloo taxawal banqaas bu au conseil des collectivités territoriales kon lu la bu demee ba comme sénégalais yi majorité bu kenn du doon dul en 2012 rax ci Vous ba mu ba ci nguur pour jëmmal programme plan Sénégal émergent ci plan Sénégal émergent boobu dafa wéyal di dëggal kàddoom ya mu defoon ci biir yoonu de au conseil des collectivités territoriales Tout le ci biir PSE ngir mu gunge loolu ñuy wax décentralisation tam expliqué leen ko sànq maanaam naka la ñuy dogal yi nga xam ni moom la nguur gi di dogal ci bopp au conseil nag soo bëggee xam ndax am na njëriñ wala amul njëriñ ginnaaw li nga xam ni wax naa leen nañu xool tuuti rek jeexital yi ma di leen di xamal comme ni ma leen ko waxee jeexital yi yëpp mënuñu leen ko wax ci point de presse ndax xat na bi ci am na ay jeexital yoo xam ne fi ne nii jébbal nañ ko président de la république ma ngay seet naka lay jëlee ay dogal ñeel jeexital yooyu pour mu nekk njariñu askan bi waaye mën nañ leen a wax rek ni ah, bi au conseil di doog taxaw dafa nekk maanaam liir boo xam ni dara nekk fi woon lu bees tàq la lu doon doog a ñëw dañ koo waroon a taxawal dañ koo waroon a jëmmal dañoo waroon a taxawal naka lañuy ñuy liggéeyee war xalaat yan lan lañuy ñu war a waxtaanee ba mu ko defee ba ñu toogee rek lan ni nañu jël waxtaan ni nga xam ni noonu la ñu war a doxalee juróomi at yi ñu mom lañuy wax plan stratégique quinquennal ñu taxawal ko mu nekk benn jeexital bu am solo ndax bànqaas bu toll ni au conseil bu am plan stratégique dafa di jeexital bu am solo ci des te li tax ñu mën a def loolu mooy ba ñu taxawee rek gor yi ngeen gis ñu wër ma te nekk ci biir au conseil bi nek ay sénégalais yu bëgg seen réew nek ñoo xam ni suba suñu xëyee ca gox goxaan ya ñu nekk ña ngay soxla askan di leen dégg xam la ñuy au conseil bi dadi daal di ñoom ñëpp takku <coughs> engagé wu fexe ba nga lu ci Sénégal ñu jëmmal ko ba doon te loolu jeexital yi nga xam ni yenn dong laa leen di wax wane na seen njàmbaar ak solo bu Haut Conseil ci juróomi at yi